tey moom dañu ñëwoon pour séddale sànke yi ci waa gox bi euh, ginnaaw bi ñu defee recensement ba noppi tey jii fii mu ne am nañu mille cinq cent mille cinq cent cinquante sànke yu ñu war a joxe ci juróom-benni fan du vingt quatre au vingt neuf. waaw population bi yittewoon nañ ko ndax xam nga nawet bi bu ñëwee si biiru dafa nekk feebar boo xamante ni dafay bari surtout si xale yi moo taxoon euh, ñu def lii. seet kër yi tëdduwaay yëpp jox leen sànq. waaw ñi jox sànq sax laata ñuy dem daañ leen wax njëriñu sànq yi daañ leen wax ni koy toppatoo daañ leen wax aussi kañ lañ koy takk donc bés yëpp guddi yëpp at mi yëpp. donc euh, si communication boobu daal dina tax ñoom ñu xam sànke nan lañ koy toppatoo ak nan lañ koy jëriñoo ak lan mooy njëriñu euh, boo jël sànke di ko jëfandikoo amaana sa doom wala yow doo feebar te boo feebarul xaalis ba nga daan jël di ko fajoo mën nga ko yaxanal sa poos donc loolu yëpp njëriñ la poto poto moom ak euh, ñàkk hygiène bi moom moo tax yooyu di fi bari donc banlieue moo gën a soxla sax daanaka sànke ndax ñun xam nga amuñu ay égout amuñu ndox mi fu muy demee daal li su bëri ndox mi day taa si koñ yi te loolu dafay tax yooyu di nen di gën a bëri. waaw bi ñu leen inscrire dañ leen dañ jox ku nekk bés ndax xam nga dañ koy étaler si juróom-benn bés te léegi bu ñëpp ñëwandoowee duñu mën a gérer flux bi moo tax ñii dañuy ñëw tey ñii ñëw suba bala le 29 donc noonu lañ leen di gérer mais ñoom ñëpp ku nekk xam nga bis boo war a ñëw.